yaa أنقذنا فتى لليلة القدر الحمد لله المجيد ذي القدر من قسنا فتى لليلة القدر الدارين la muy dogal moo la gën ca jàmba bu dee lu tiis mooy borom la muy dogal moo di la gën ca jàmba bu deelu tiis itam ni mooy borom ba bismil ila ca yàlla may murid وهو الذي يفعل ما يريد بسم الإله يلا من يريد وهو الذي يفعل ما يريد la muy dogal moo la gën ca jàmba bu lu diis itam ni mooy defar bakkan bu ñam dundit la wax ci dunya zaiqatil mawti bi ghayri sunya santay li war ci jaam borom dogal di ay di mu ci calay mbugal la soxna baali dem dëkkeek ndeyam بنت القديم كان جماجة la soxna baali dem dëkkeek ndeyam ja bintul xadim ca kanam jumaaja jooy at mee di laylatul qadrin taltasil mee fukki fanat juróom sëriñ Isxaa ndax ba dem murid ya gën fee mu naa na ngeen taxaw te ñaan mu yam fii ndekete Cheikh Abdoul Fatay tàggoo fii daarul qudusi am na tiis wu meeti yii bisa tiis murid yi duñ وإنا إليه yàlla di buur te moonu moom billaahi newoon na de du ñëw lu dul ci mbetteel ku yebuwaat te di ko bàyyi xel teel inna lillaahi wa inna ilayhi yàlla di mu waaj ko bàyyi xel wa kullu nafsin mag la muy ndaw sax zaiqatul mawti malaaka yee wa kullu shay'in haalikun la buur wax lu dul du des li la buur jàngal ma kullu man alayha faanin jëmmam ja des fi sax di way yàlla ni bintul soxna may moo daajam ci kuy sëriñ Tuuba kile am jaajëf añam ba ak reeram ba moo koy gàddu ba am na seen ngërëm ya door di dëddu yii jëf la soxna Baali Mbàkke yeesal di jëf ci ñoom duy ay ndabam ba feesal aseexi saali wooni woon saadiq la ngir seere ay jëfam murid saadiq la Seex Saali woo ko murida saadiqatun raw na pexem marida du jëf baali moomat lum jëf nga neel la ngir يا ربنا عزم الأمور وأمور فاسلك بنا نهج نجاح وفلاح واجذب قلوبنا لزوج وسلام وأولنا سعادة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi leen nuyu baax leen ziar di am mbégte ci ñëw ci teew ci barab bi di kër Soxna May Mbàkke ngir ànd ak mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi ci màggal bis bi bis boo xamee ne yàllaa ko màggal bëggal ñu sunu njariñ moo tax mu indil ñu euh, laylatul qadr seet li gën kawe muy kado bi gën a kawe muy alquran Euh, mu may ko humanité ci guddik tey gi kon honneur ak euh, tedd nga munta weesu bis bi ci réyaay bi tax na yàlla wax ne xayru min alfi shahrin moo ëpp doole jaamu yàlla euh, junni weer kon loolu mooy wane l'importance bi temps am espace boo xamee ne lu ko yàlla jagleel la waa ko Sëñ Tuubaa yëpp am benn waar wu ñuy liggéeyal sëriñ bi waar wu ñuy dakk sëriñ bi euh, soxna may nag yàlla jagleel ko bis bi gën a kawe walla guddi gi gën a euh, fort muy guddi gi gën junniy guddi guddi gi alxuraan wàcc kon loolu euh, dafa mel ne denc bu sëriñ bi dencal soxna si la soxna si nag ku ne xam na taxawaayam ci bis bi bam ko dalee dale ko ca magam ju tedd ja sëriñ euh, Fallou euh, lam ko ca wax euh, ñëpp ko gis tey ne ko mu doon benn ginaar mu ne da dem ba def ci ay ay gileem ku ne gis ne li fiy wàcc ci ay gileem ak i bernde loolu mooy wane ne lekkal yàlla moo wóor sellal moo wóor nekk ci yoon wu njëlbeen gi mën naa metti njël gi waaye boo ca saxee te sellal te nekkal yàlla faaw day mujj tuuru day mujj nekk fatxan mubiinan loolu nag gis nañ ko suñu bopp mu doon loo xamee ne ñun ñëpp la la lay ñun ñëpp ñoo ci war a jàngee ne eh, ku nekkal yàlla yàlla nekkal la eh, ne tobbil na buntu te lépp bëgg rek yërmande yàlla wàcc ci mbindeef yi ndax mën na koy berndeel boppam te du jawo kenn mën na koy dundal waaye yéene jullit yi eh, xéebali alfun min xayru min alfi shahri googu wàcc ci seen kaw moo tax mu yaatal ko woo ci taalibe yëpp kon képp ku fi ñëw rek ci bis bi rappel la ci yow nga fàttaliku euh, sensu bis bi sensu euh, laytul xadri sensu li fi wàcc muy alquran euh, mu ne message yu yàlla la nan lañ ko war a comprendre nan lañ ko war a dundee nan lañ ko war a dundale ci sunu bopp nan lañ ko war a jëmmale ci sunuy jikko nan lañ ko war a jëmmale ci sunuy relation entre humains nan lañ ko war a euh, euh, jëmmale ci sunu doxiin ak ci sunu societé ba mu bañ doon alxuraan doon léeboon lippoon waaye mu doon ay réalité réalité yoo xam dafa ñëw pour inna hada alqurana yahdi lillati a aqwam dafa ñëw ngir euh, guider ñu ci li gën loolu la alxuraan wax dafa mel ne nag soxna si buy dundal guddi gi loolu la bëggoon ñu ko alxuraan ñu fàttaliku valeurs yi yoon sansaram doon jàngale ñu mën koo dund ba mën a transformer sunu dund jëme ko ci li gën gi comme ni ko alxuraan waxee kon moom def na warteefam eh, lim fi nekk ak ay magam di taxawal guddi googu di ci berndeel di ci jaamu yàlla di ci dajale julli di di leen fàttali yàlla eh, di ci def la ko war ba yàlla ni ko fi yàlla moome njabootam gu tedd gi nekk fi soxna Bali yàlla na yàlla yokk leeram soxna sëriñ Mahfouz ba tey sëriñ Abdul Ahad mi nekk fi moomit it di nit ku ñu naw di. xam ay responsabilité am ci société bi xam responsabilité am ci diine ji xam héritage ay maamam ak ay eh, baayam mu koy wëyalee ci taxawaayam ci eh, ay engagement am euh, ngàcca ngalama lañ wax fam ko fekkoon ak fi ko àggale tey ci ni mu ko médiatiser ni ko joxee beneen dimension loolu lépp taxawaayam la ak xam mborteefam euh, beneen bi it mu yor ay engagement yu am solo ci dëkk bi di eh, fexe xam ne ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne eh, bokku ñun koo xamee ne lii li ñu moom yitteelu la mooy eh, yëfi jullit yi man la lam tamit bi amril muslimin fa laysa minhum ku intérêt général jullit yi nekkut sa yitte kooku bokkut ci ñun kon souci boobu mu am ak am yëg-yëg ne dafa war a liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi dafa war a liggéeyal sëriñ bi ci réew mi ba mu jël engagement bi te c'est pas évident nag ndax yombut ab sëriñ day ragal du bëgg euh, yenn engagement bi ci dugg kon dañ koy wax gàllangaa gàcce ngalaama mu ñemee taxaw taxawaay boobu def ko tamit ci euh, ndigalul ay kilifaam ngir rek liggéeyal sëriñ bi ngir liggéeyal réew mi loolu euh, dañ ko ci encouragé dañ ko ci gën a dëgëral di ñaan yàlla yit jàppale ko ba lim bëgg a yéene ji mu am ci liggéeyal réew mi yéene ji mu am ci liggéeyal dëkk bi yéene ji mu am ci liggéeyal sëriñ bi yàlla jàppale ko ci bam liggéey bam def ci eh, eh, lu kawe kawe njortu ci barke Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp leen gërëm di ànd ak ñun eh, ci bis bi di ci taataan leeri yàlla yi ci wàcc di ci ñaanal sunu maam ak sunu kilifa yu tedd yooyu fi nekkoon doon liggéeyal yàlla yàlla yokk seen leer yokk seen barke ci barke sëriñ bi ci barke bis gi. kebe nag kebe kebe <laughs> على الذي تبي به